Fayda Tijaniya s'est réalisée. Alhamdulillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi kontaan ci toogaat ak yéen beneen yoon. mu ne mi ngi kontaan ci toogaat ak yéen beneen yoon. kontaan itam ci waxtu bu ma toogee rek dina gis lu bees loo xam ne gisuma ko mu ne mi ngi kontaan ndax heure bu toogee génn rek na gis leneen lu bees lu mu gisutoon. te lu baax lay doon. te lépp lu baax lay doon. ndax ngeen toog université élèves yi université laïque gouvernement laïque yëpp laïque. mu ne université laïque gouvernement laïque lépp laïque. xale yi dafay jàng jógee fa ñëw di def ay xasida yi ci tagg yonent yàlla Muhammad xale yi dafay jàngee ñëw def xasida yu rafet yi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mokkal ko ci seen xol te dañ ko mokkal seen xol ci seen xel ci seen xel ci seen làmmiñ ci seen làmmiñ dëgg-dëgg loolu xam ne ne lu bees la dëgg-dëgg sëriñ bi mu ne loolu lu bees la ci man ci moom ñu ngi ñaan yàlla mu ne mi ngi ñaan yàlla yàlla leen yàlla samp ngeen di kandiyaay diine yàlla yàlla samp leen ben bés ci Paris. mu ne serigne bi neena ben benn bés ci Paris. dama tok ci ben café. dafa tok ci ben café. di deg rek ben way bu way way bu Diouf yi. Seydi Barham mu tok rek deg ben way di way way bu Diouf yi. Seydi Barham Seydi Barham. Seydi Barhama Seydi Barhama Seydi barham mu gestu mo xan li malaka la wala wala waxiw la. serigne bi mu ne mu gestu rek ne lii malaaka la wala waxiw la. di xol ba gis ben nit bu ñuul. mu ne muy xol ba gis ben nit bu ñuul. tok ci bir biir tubaab ya. mu tok sa bir tubaab ya. ma dem ma ne ko yaay woy woy bàyyi ña si mu ne waaw waaw eh, koy waxal yëpp mii nii bàyyi ñees waaw di dal lem fóon defaat defaat ci poosam eh, loolu ma bett mu ne loolu bett ko kenn xaaru ko mu ne loolu nag mooy bàyyi ci ñun mi ngi yaakaar yàlla nay ànd ak ñun. mu ne mi ngi yaakaar yàlla na ànd ak ñun. te moo ñu ko wax. te moom Baye moo ñu ko wax. ca waxtu nga xam ne soxla nañ suñ bopp. te waxtu boo ne soxla nañ suñ bopp. te fi mu ñëpp soxla nañ suñ bopp. te fu toll nii ñun ñëpp soxla nañ suñ bopp. suñ diine soxla nañu. suñ diine soxla nañu. suñu réew soxla nañu. suñu réew soxla nañu. suñu ay institution soxla nañu. soxla nañu. yal nañu yàlla dimbale. mu ne yàlla yàlla dimbale ñu. bañ uyu leen. nit ñi soxla nit ñi soxla ci diine. ci diine. ci xam-xam. ci xam-xam. ci bëgg sa réew. ci bëgg sa réew. ci xam li ngay liggéey. ci li ngay liggéey. te di ko def ak cofeel. te di ko def ak cofeel. ndax looy def ànd ci ak cofeel rek. lépp looy def ànd ci ak cofeel rek. yàlla def ciy jàpp. mu ne yàlla dina ci jàpp. ndax lan ndax lan yàlla dafa wax ne mu ne yàlla dafa wax ne ci xadiisul xudsi ci xadiisul xudsi nekkoon naa nekkoon naa man yàlla di lu nëbb di lu nëbbu di lu nëbbu kenn xamuma kenn xamuma ma bëgg ma bëgg ñu xam ma ñu xam ma bon ci mbëggeel lañ bàyyeekoo ci yàlla kon nag ci mbëggeel lañ bàyyeekoo ñun ci yàlla ci yàlla bon tamit ci mbëggeel kon nag ci mbëggeel lu muy bëgg a tabax rek lépp luñ bëgg a tabax rek nañ ko tabax ci kaw bëgg nañ li ñu tabax. nañ ko tabax ci kaw bëgg nañ li ñuy tabax. bëgg diine. bëgg nañ diine. bëgg nañ suñu dëkk. bëgg nañ suñu dëkk. bëgg nañ xam-xam. bëgg nañ xam-xam. bëgg nañ liggéey pour dool yi doomu aadama. bëgg nañ liggéey nag pour dool yi doomu aadama. yal na yàlla defal leen ko. yal na yàlla defal ñu ko. yal na yàlla may leen soxla yëpp. yàlla yàlla may leen soxla yëpp. président mu ne soxla yu bari. président mu ne soxla yu bari. benn soxla amut. benn soxla amut. dañoo doguwul rek pour jàkkaarloog àddina. dañoo doguwul rek pour jàkkaarloog àddina. waaye buñ jàkkaarloo àddina. waaye ëpp buñ àddina. àddina mënuñu. àddina mënuñu de. ñoo ko mën fuuf. nit ñoo mën àddina fuuf. yàlla ñu yàlla dimbale. yàlla yàlla dimbale ñu. bañ àgg ci doole ji nga xam ne. bañ àgg ci doole ji nga xam ne. dañ ñuy jàmbatal soxla waaye ñu duñ ko jàmbatal kenn. ñuy jàmbat ak ay soxla waaye duñ jàmbat soxla kenn. yàlla yàlla defal leen loolu. yàlla yàlla ci seen dund. ci seen dund. ci seen xale. ci seen xale. ci seen mag. ci seen mag. ci seen évolution ci seen réew. ci seen évolution ci seen réew. yàlla ànd yàlla ànd ak yéen kenn ku nekk ci ndimbalam. yàlla yàlla ànd ak kenn ku nekk ci ndimbalam. ndimbalam gi nga xam ne yonent wax na ne. ndimbalam gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne. yow yàlla ñaanuma la. yow yàlla ñaanu ma la. li nga dogal nga dindi ko. li nga dogal nga dindi ko. waaye dama lay ñaan. waaye nag dama lay ñaan. ñëweti. ñëweti. ci biir ndogal googu. ci biir ndogal googu. donc ñu ngi ñaan yàlla. kon nag sëñ bi mu ne mi ngi ñaan yàlla. ñëweteem gu sew googu. ñëweti yàlla bu sew boobu. xam ne ñun ñëpp soxla nañ ko. nga xam ne ñun ñëpp soxla nañ ko. yal na yàlla jëflanteeg ñun. yàlla yàlla jëflanteeg ñun. ci kaw ñëweti googu. ci kaw ñëweti googu. ay xale soxla ngeen seen bopp bu baax. soxla ngeen seen bopp bu baax a baax. ndax at yi ngeen tollu ndax at yii ngeen tollu bu ci leneen tolloo lu yem ni moom. bu ci leneen tolloo lu yem ni moom. xamu leen nu muy mel. xamu leen nu muy mel. ni muy mel nag bu boobaa. ni muy mel nag bu boobaa. waxtu yi rek nga koy fàggu. waxtu bii rek nga koy fàggu. boo toppee sa bakkan sàkk ñàkk ko. boo toppee sa bakkan ñàkk ko. boo toppee sa doole ak sa taar ñàkk ko. boo toppee sa doole ak sa taar ñàkk ko. boo toppee say bëgg-bëgg àddina rek ñàkk ko. boo toppee say bëgg-bëgg àddina rek ñàkk ko. te loolu yëpp ñu ngi yaakaar ne du doon kenn ci yéen. te loolu yëpp sëñ mu ngi yaakaar ne du dal kenn si ñun. yàlla def yal na yàlla defal leen loolu. yal na yàlla defal leen loolu. Cheikh Ibrahima moo ak ay nawleem ñoo fi nekkoon. sëriñ bi mu ne Cheikh Ibrahima moom ak ay nawleem ñoo fi nekkoon. ay doomi baayam. ay doomi baayam. ñëpp di ay borom xam-xam. ñëpp di ay boroom xam-xam. nekk fekk ay sëriñ ci Sénégal. nekk fekk ay sëriñ ci senegal ñëpp di ay boroom xam-xam. ñëpp nekk di ay boroom xam-xam. ku nekk samp nga daara ju rëy rëy. kenn ku nekk samp nga daara ju rëy rëy. seen dara. seen dara. daara. seen daara. dox na ni mu war a doxee. dox na ni mu war a doxee. waaye Cheikh Ibrahima mu ne. waaye Cheikh Ibrahima mu ne. daara ji amut fii. daara ji amul fii de. ndax borom daara ji dañ ko wax ne. ndax borom daara ji dañ ko wax ne. wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi ci ñëpp laa la yónni. laa yónni si ñëpp lañ la yónni yow. kon ku am daara nag. kon nag képp ku am daara nag. mu taxaw taxawaay yu wér. mu taxaw taxawaay bu wér. nga bëgg koo tëj. nga bëgg ko tëj. yaa ngi uteeg wax jooju. yaa ngi uteeg wax jooju. kon nag man daara Sénégal jii dinaa ko gàddu yóbbu fu nekk. kon nag man daara senegal jii dinaa ko gàdd yóbbu ko fu nekk. fu nekk ba mu demee ñu nangul ko. fu nekk ba demee rek ñu nangul ko. seetal ba muy dem di yóbbu daara jooju. xoolal ba muy dem di yóbbu daala jooju. bu demoon échec. bu demoon échec. ndax bon dina ñib siwaat. ndax bon dina ñib siwaat. wala bu ñib see dina métti lool ci moom. wala boog bu ñib see dina métti lool. waaye am na cofeelam. waaye am na cofeelam. am na mbëggeelam. am na mbëggeelam. am na xam-xamam. am na xam-xamam. am na fitam. am na fitam. ñeme naa jàkkaarloo. ñeme naa jàkkaarloo. ku mel noonu rek la yalla soxla. ku mel noonu rek la yalla soxla. La Faïda Tijaniya s'est réalisée. Alhamdulillah.